gaa yi na ngeen ah yéen a ngi jël tool bi di tey bés bu mag la pour euh, démocratie Sénégal particulièrement pour la démocratie locale def nañ euh, une pré-campagne def quinze jours de campagne muy euh, moment yoo xamante ne moment yu am solo la dem nañ vers les populations wax nañ leen suñu mbëbët ak li ñu bëgg pour suñu territoire tey nag yaakaar naa ne du bésu campagne bésu scrutin la ñu war ko def ak dal war ko def ak sérénité war ko def ak jàmm voté naa ba pare maa ngi dem effectivement donc xaar les résultats mais di lancer un appel à tous les Dakaroises et les waa ñu def lépp rek si jàmm ak si yar parce que loolu mooy grandir suñu territoire Dakar loolu muy grandir suñu réew Sénégal parce que àdduna mu ngi seetaan te yaakaar naa ne Sénégal dafa mës a ràññeeku si def ay élections yoo xam ne day jàngal àdduna bi du am solo mooy ko ne dëkku démocratie la dëkku jàmm la maa ngi remercier Dakarois yëpp ak Dakaroises yëpp. ne leen vraiment kontaan naa si seen taxawaay kontaan naa ni ñu ma accueillir si koñ yi si kër yi tey nag wax dëgg yàlla na ñëpp génn vote parce que au-delà du fait que dafa war a nekk si jàmm ak dal mais aussi taux de participation bi dana am solo lool parce que loolu rek day wane ne effectivement population Dakar ñu ngi en phase avec euh, ñi xamante ne ñoom ñoo bëgg effectivement seen i voix pour diriger territoire bi nekk Dakar muy la ville capitale. muy élection dans quel état d'esprit le ministre. waaw maa aborder j'aborde le scrutin euh, de ce jour euh, dans un état d'esprit de sérénité nous avons fait deux semaines de campagne précédées par une pré-campagne et. Ça s'est fait effectivement avec beaucoup de rigueur, beaucoup de méthodologie, beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, euh, nous ne sommes plus dans cette phase de campagne électorale. C'est le jour du scrutin qu'il faut aborder avec euh, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, mais surtout dans un environnement et un état d'esprit de paix, parce que notre pays, le Sénégal, est un pays connu pour euh, donc sa culture démocratique et sa culture de paix. Euh, Moi-même, en tout cas, je lance un appel à tous les Dakarois et toutes les Dakaroises de leur demander d'aller voter dans la paix, dans la sérénité. Et Inch'Allah, euh, ce soir, le meilleur, je vais dire, le choix des Dakarois va s'exprimer. Et le lendemain, nous irons au travail tranquillement. et ce sera effectivement la victoire de la démocratie au Sénégal et à Dakar. je crois que je crois que cette question-là ne mérite pas d'être posée aujourd'hui nous sommes dans une élection territoriale dans une élection locale et je suis sûr que les Dakarois et les Dakaroises ont compris que il faut faire la part des choses ce qui est important c'est les préoccupations immédiate des Dakarois et les Dakaroises. Ce qui est important, c'est le territoire Dakar, comme les autres territoires dans les 601 collectivités territoriales sont importantes. Toute autre question qui sort de ce lot-là euh, de l'élection territoriale ne mérite pas d'être posée aujourd'hui. monsieur le maire daal di nemmeeku rek ne gis nañu ay jafe-jafe lu si mel ni wàllum retard bëri na ci centre yu bëri waaye fii tamit nemmeeku nañ fi maanaam personnel électoral matériel yëpp yemoon na waaye ñu waroon siège gis nañ ne ñu bëri dañu retard électeurs yi rang taxaw di xaar loolu noonu. waaw loolu bon maa ngi koy dégg parce que léegi nii bu ma ubbee sama rajo maa ngi dégg effectivement que problème bi ma noonu am na si yenn localités yi. bon loolu nag euh, yaakaar naa ne ku xam élection yàgg di participer sa élection xam ne le zéro défaut n'existe pas zéro défaut amul en en matière électorale amul d'ailleurs de de de manière globale euh, il faut rapidement maintenant euh, demander à ce que ñi organiser élection yi au niveau du ministère de l'Intérieur ñu jël les dispositions de correction très rapidement pour que donc euh, heure bi ñu mën ko donc combler mais euh, moi je yu mel ni moom non seulement am na tey mais on tend toujours vers l'excellence, on tend toujours vers la perfection, mais il peut y avoir de temps en temps de petits problèmes comme ça, mais j'espère que ceux qui sont, ceux qui sont responsables en charge de ces élections-là danañ jël des mesures euh, de correction très rapidement. Monsieur